sénégalaise de xamal <clears throat> seen euh, commission boobu fédération dañu gaawtu te matuñu njiit waxuma démission bi may dégg sax gars yi di ko def mais ñoom seen boppa kenn ku si nekk yaawaar dem sa toogaay sa toogaay xoolaat a institution catholique ndax mu ngi dox waa wala déet parce que man defe naa ne ñoom seen xel dafa freiné ah. am nañ maladi nit nag su toogee cerveau am doxul dañ ko war a yóbbu ñu pidje ko bu laajee pidje bu laajulee pidje ñu jéem ko fay ñu ko doxale parce que nit ñaari nit histoire toogaguloo nga bëgg a atte atte jël benn parti rek dugal ci kaso bi xale yi ñu dugal ci kaso bi bàyyi mën leen bàyyi nit parce xale waxoon naa ne xale ba jóge woon dugg ñu téye ko ci mbir mi ku ñu waroon a fudd rek la dóor ko ñaari kii rek bàyyi mu dem waaye xale yi aussi ku leen ne ñoom la bu ñoom nañu attaan nañu defaroo nañu waxtaan ñii nga xamante ne ñooy fédération bi su sa gis jaboot ci Sénégal yow nga jaboote nii waxtaan amul ku si bokk ci fédération bi ah. mais ñoom waa bu ñoom ñoo yor fédération bi fan yii passé coow am na bu ba ñu ne yàq nañ fa ba lu 6 millions dégg ngeen ko fi réew mi doon wax ñu Malick Kandouma ñoo meen xaw ma naka mu tudd sax euh, waa ji Ahmed Aïdara ak ñu doon wax naan jamu la yor ñoom yëg nañ ko wax nañ ci xam nga lu xew réew sax su amee coow lu mel noonu. dañ war a jël rajo yëpp bloqué leen nag kenn du wax dañ war a bàyyi taal réew muy lii may wax ci opposition bii dañu yàkkamti pour que réew mi di am problème bu ñu dugg ci indi coow ci réew mi est-ce que loolu baax na fitna masula baax te ñoom journaliste yi xam nga leen wax naa leen ne dama leen gëmatul xam nga gëmatuma leen parce que da nga gis nit muy wax si nit loo xamante ne pour jaay produit rek kese déedéet da ngay gis nit si adduna mu war a xam ne lii kat du lu baax xam nga ñun lébu lu wax si loolu dañu na way wuy dëpp gaal kenn du ko way si géej bala de parce que ñëw fekk nit nga nekk lan la ñun ñëpp ay mbokk lañ joolaa bi xaasonke bi séeréer bi lébu bi ñëpp ñu doon bokk benn maam tey gii ñu war a doxal ci adduna war a dox dëgg war a dox ak ngor dox ak lépp ci jàmm ñuy ñaan yàlla Sénégal su booba ngoon jàmm rek di fi am nga ñëw wax woo xam nga xamante ne da nga ruutale ay bopp waa loolu loolu loolu pour lan la noonu ah léegi xale yi waxaam ñu jël leen ñoom seen boppa ñu ne euh, waxuma sax ay arrestation ah, mais dañ leen di aj sept ñii wax loolu parce que ñoom ñooy buur waxoon naa ko fi dama waxoon ne ñoom ñii diriger ligue ñoom seen bopp ñoo sanctionné Wakaam te lool lañ yàkkamti woon parce que Wakaam dem na Saint-Louis ñu ne équipe Wakaam car rapide bi car bi yor du dugg si biir stade Saint-Louis fu nga commencé dégg Sénégal te mu doonoon say dirigeant ëllëg ñu ko si journée wala si kenn déggu ko ñaari tali dem mbuur waa mbuur dóor leen ba watat sànni kenn waxu ko ñëw ñu am problème mbuur marqué kii marqué kii nii ñu ne gañe na ñu ne coow am na ñu ne nangam nangam ñu yóotu wakaam tëj mu muñ tàll mi ba njëriñ léegi ñoom ñii di atte au lieu que ñu toog xéewlu waxtaan ñuy seet naka la ñuy arrangé lii ñu ngay seet nan la ñuy pour ñu tëj doomi waxtaan ñu ngay attee ne waxam bu ñuuti si sport bi ma dégg sax président bi korog mu naan wéy bon ñun buy mbokk xam waxam terrain que par force la ñu par force buur waxam ay mbokk lan par force dañuy fo ñoom ñi doon atte na ñoo waxam du fi ñëw fekk sept ans xam nañ loolu si mën a nekk yow sept ans yi nga mën a assuré bu la neexee après sept ans yi wakam day ñëw ñàkk ñu lu ñu ñëwee bokk su boobaa jàmm rek moo war am ci réew wala dañ nañ dégager sa wakam fekk sept ans buy wakam daa ta ñëwaat ñu ñëw di siyaade leen nangam nangam déedéet parce que kii na tëj sept ans boo ñëwaatee su boobaa attention nit la comme yow melal da nga war mel xam la nga war a def lan la parce que nit ay nit leen léegi fi mu nekk nii lu tax ñoom ña nga xamante ne ñoo sanctionné woon gis ñu ne ñoom dañ waroon démissionné booba moom mii doon wax di tax waayu fédération bi est-ce que waroon na wax est-ce que amoon na droit si parole xam nga lu ko gënoon a journaliste bu ko posé question mu ne ah man de dama fa nekkul waaw dama fa nekkul moo gën a gaaw moo gën a yomb waaye am nañ yëg ne dama fa nekkul bu ko defee ñu naan waaw bu tax nekku fa doo wax ne nekkuloo fa woon nekkuloo fa bëgg uh, tulli ak sabar géntewul man ngaa nettal sa gént ak gént jàpp kilifa day tey fédération nañ tey parce que lii dal Wakaam tey ak Mbuur yàlla bu fi amati mais man na am beneen façon boo xamante da ko fi amee te su boobaa bu ñu defee at tey li ñu defoon dañ naan amoon na fi wala nangam nangam nañu réglé ñoom ñooñu fa nekk am nañu si am ay ñaari jabar dañuy dem seen kër fekk fa ñaari jabar di xeex ñu daal di kii dañuy daw nëbbatu parce que c'est des irresponsables ñu tous parce que ku nekk tous bu na dénkee lu toll ni fédération ngeen war a toog war a waxtaan di defare di arranger xale yi xale yi bu waree xeex ngeen waxtaan ak ñoom soo toogee ba coow am war nga mën a ñëw daal di leen kat ay mbokk ngeen nangam nangam au président Bour au président Wakam ne leen attention dañu bëgg nag affaire bañ a déborder waxtaan leen seen biir su ko defee waa Bour dañuy dem waxtaan ak seen bopp ñun ñu waxtaan ci suñu biir mooy suñu président day ñëw si ñun nañu kat waxtaan leen ak nangam ñu jël quartier bu ne ñu ne na diw ñëw na diw ñëw na diw ñëw na diw ñëw ñu leen dem leen ngeen réunion si quartier yi xamal leen ne lii am mbuur warul am mbuur warul dal mbuur yéenewu ñu ko ko nañu góorgóorlu nag ba bu kenn wax si nangam nangam loolu moo doon dëgg waaye ñoom dañu génn rek nga dégg kële naan non non non Kaam nangam sangam ñoo amee toor Tornol, noonu la ay nafeq la ñoom duñu dara parce que da ngay ñëw sa kër fekk ñaari di histoire sa dugg si faral kii kële faral kële kële faral kële ngeen di këtëb kële bi duñ ko mën a rek rek antal ñu sax seen kër bay ñëw neen dañuy wax waxi Sénégal bu antul sa kër du ay poste da ngay waaye ñëw di gàddu bu bu bu bu bu ñu waree waxtaanee nga daal di dem gis ñii président Ouezo gis président Ngor gis président diw président diw président diw pour que ñu wooteel la ñu wooteel la pour que nga toog fi rek di yegg si avion xa dama xa ñëw te xam loolu ñu dara dikkee dama ne loolu taxul woon ñuy ut ab kii xam nga Wakaam kañ la am kañ am équipe mille neuf cent cinquante et un Wakaam ci équipe yi fi mag la Wakaam xam nga kañ la jëkk a jël coupe du Sénégal boobu mu ngi troisième division en 1964 ñun miin nañu ay coupe miin nañu ay coupe ay coupe yi coupe la ñu am gagné nañ fi coupe contre Arfa xam nga ku ñu fi ko dóor jaraaf moo fi dóor en 1970 ñii si des ñëpp dañ leen dóor waa ngoon lu ni li li li guni la wax rek lan leen na ma xanaa kañ fo rek. nañu fa rek man bu fekkoon ne lii nii mënuñu ko négocier si jamono boobu ngoon dañuy jël coupe bi jox ko waa Mbour jiital leen ak indi ndax sabar ba Mbour ñu fecca feccax ñoom ba bët set ñu ñibbise ñoom ñu gunguñu ba euh, jam ñaajo ñu tagaat foofu ñu sabar sabaru ba heure bu ñu neexee ñoom ñu demaat ñi bi ñu ñu demaat ñi loolu buñ ko waxoon mu nekk bu ñu bàyyi woon ak Mbour rek sax ci bii desee amee woon ñun dinañ def tout ba mbuur ñoom ñu xam ne ñun seeni i bokk lañu waa ñun it waa Wakaam ñu xam ne waa mbuur suñuy bokk la waaye dañu dugg ci diggante bi xam kenn duggul ci diggante bi la fédération ñoo dugg ci diggante bi di tëppaxee di ay fumiste la man jaraaf maa ko wax bu ma génnee Dakar ku ma gis ñax ma bañ wax naa ko ba pare duma foofu